Sénégal asalaamualeykum mbokku Sénégal ci biir ak ci biti jóg taxaw ngir génne Sénégal ci guuta maanaam takku wallu Sénégal ci ñaar fukki fan ci weeru mars 2024 ci lu leer lu kenn dul werante sénégalais yi ñoo tànnoon yoonu politik wu bees waaye bi ñu doxee juróom benn weer ñu gis ne yaakaar ji ñooñu amoon tas na weser ba indi njàqare ñu seetlu lu kenn dul werante lu kenn ku nekk mën a teg baaraam ne yorin wu bees wi du yorinu ku xam yorinu ñuy jàng seen liggéey lañu te mokkalaguñu ko ñu indi fi jaxasoo indi fi njàqare ci anam yoo xam ne dafa jog nag pour ñun ñu jóg ne naa ci juróom-benn weer dong koom réew bi nërmeelu na réew mi dellu ginnaaw ndax fin ko wekk mooy xayma ak saytu yu jóge ci ñoom dem ci FMI ñépp dégg ko kenn mënu koo werante muy ci biir muy ci bitim réew xam nañ ne Sénégal wàcc na yoon wi mu teg woon nit ñi di yëg yokkute ci seen bopp ñu ne nag bala ñuy def ci li tubaab di wax fayit maanaam nërmeelu bekkoor ba kenn dootul xam foo jëm ak looy def ñu ne nag jóg jot na ndax yoon wi ñu jël def lépp politique di ko xeexe askan wi képp kuy doomu Sénégal danga nga cee war a jóg taxaw lu ëpp ay téeméer ay téeméeri liggéeykat moo xam ci administration wala ci privé bi ñàkk nañu seeni xëy ci diir bu gàtt amoon con ñi amoon ay contrat yu amul app dañ koy wax CDI ñi nga xam ne dañoo raf ñaaw njort ci ñoom ci wàllu politik ñoom ñëpp jële nañ leen ci seenu place liggéeykaay ñu ci yokk ne xale yi nga xam ne amuñu woon xëy nekk ci mbedd mi di daan seen doole ñu leen di wooye ambulant ñoom ñëpp jaaxle nañu ndax port bi dara wàccatu fi dawalkatu jakarta yi gisatuñu ku ñu yóbbu ndax nit ñi dematuñu dikkatuñu xale yaa ngi jël gaal yi bu doon daaw ak daaw benn lañu léegi loolu yokk na ba ñettam maanaam fu kenn doon demee léegi ñett dinañ xëy maanaam jël gaal di ne dañuy dem ci yeneen yeneen yeneen dëkk li gën a indi njàqare mooy sunu kilifa diine yi ak kër yi ñu jiite ñu koy salfaañe di leen ñàkkee kersa wan ñàkk yar bu wér peñ loolu lu bees la ci réew mi képp ku bëgg dal ak wegeel ci mag ñi war ngaa jóg taxaw wallu Sénégal te ñépp dañoo war a takku pour loolu mën a am ñu dénk la nga pare ñu laaj la saytu la loolu ba àddina sosoo ba tey fi lañ ko fekk muy lu war nekk yàgg nekk ci doxaliinu réew mi ñu seetlu ne ñu bees ñii ci lañu bëgg a jaar pour faagaagal ay responsable politique yoo xam ne ragal sunu taxawaay bii ñu ñëw bokk ci gën koo dëgëral loolu rek moo tax ñu leen di sonal di leen buntu xatal di leen woo dig di leen woo di leen yóbbu ay kaso jaay doole boobu yéen waa senegaal bu nu ko nungu nanu takku wàllu képp ku nekk ci jafe-jafe bu melokaan wi mel noonu bi nga xamee ne juróom benn weer dong wax naa ko sànq yorin wu ñaaw wi bi nguur gu bees gi yor maanaam di def loo xam ne deru senegaal yàqu na ci biir ak ci bitim réew war na noo jóg ñu takku ngir wàllu Sénégal suñu toogee rek banque suñuy loxo di seetaan ah senegaal mën naa dugg ci jafe-jafe mën naa dugg ci gudda goo xam ne li fi président Abdoulaye Wade ak Macky Sall defoon loolu mën naa naax saay loolu nag ku ne war ngaa jóg ñu takku wallu ba loolu du am ñaar fukki at ak ñeent yi ñaar ñooñu yor réew mi ku ko méngale ak sa bisub tey làmb sa poos mbaa sa poset war ngaa xam ne réew mi fi mu jëm baaxul sunu mbooloo mii di takku wàllu Sénégal nu am pas-pas pour taxawal ko ngir fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ñuy woote wote boo xam ne pencum ndaw réew mi moom lañ bëgg a taxawal ñu woo ci pour ànd ci ci takku ak wallu ngir senegal takku wàllu ngir Sénégal pour que li fi nekk li ci baaxoon ñu fexe ba loolu kenn du ko naax saayal li nga xam ne jaar na fi ci lu baax nu ful ko li nga xam ne buñ ko defee askan wi gën yëg seen bopp ñu jublu ci loolu ci programme de législature et de gouvernance bu ngeen ñu joxee majorité parlementaire ak majorité de gouvernement takku wallu ngir tabax takku wàllu Sénégal ngir li nga xam ne wax naa ko sànq def nañ ko fi ñu gën ko dëgëral te nun ñépp nu bés suñuy xol muñalante laayante biir ba li nuy wut nu am ko soxlaas ñépp ñu féetale ko kaw kenn ku nekk denc sa soxla ba ñu faj soxlaas askan bi mooy takku wàllu Sénégal takku wàllu Sénégal jot na sëkk de juróom benn weer yi liñ ci dund xam ngeen ne li ma ko waxe sànq ku nekk seetal sa bopp diggante daaw ak ren wallu senegaal ngir dëkku jàmm ci mbokk xamuñu waaso xamuñu tarixa lépp doon benn waa senegaal bokk ndey bokk baay ñu fexe ba kenn du fi jële loolu nan takku wallu senegaal ngir li fi maam yi fekkoon ñu fekk ko fi bu ko kenn yàq tàqu wàllu Sénégal ndax nag république mooy li ñépp bokk constitution muy sart ndeyu sart réew mi di li nga xam ne moo ko taw ñu fexe ba loolu kenn du ko salfaañe kon nag nan takku wallu ngir Sénégal li mu nekkoon ci jàmm loola ñun ñu man koo wéyal ñu jóg xeex taxaw temm ngir jàmm wéy ci réew mi dal gi fi am wéy fii ba état de droit maanaam euh, sàmm yelleefu doomu aadama sàmm ay sañ-sañam ba kenn du ci mën a dellu ginnaaw ndax loolu mooy màndargaam Sénégal ba tax na ñun woote bii ñu def ci parti képp kuy parti politique moo xam ay parti yu lëngoo la ñu koy wax coalition moo xam mouvement politique la moo xam syndicat la moo xam société civile ñi farut fenn ngay jigéen ngay ndaw ngay senegale ci biir ak ci biti ñu leen di woye diaspora fàttewuñu leen mbir mi ci ngeen bopp te réew mi tànk yi mu jëm dalutam xel na ngeen wax ak ñi ngeen fi bàyyi ndax kat lii ñuy gis jëmut kër te danoo bëgg réew mi wéy ci anam yu koy dooleel ci anam yu senegaal nekk koo xam ne képp kuy sénégalais am nga ci fierté mu nekk réew mu dëgër mu fondement ya dëgër ba dara du ko mën a yëngal ñi ngi leen di woo muy jigéen muy góor muy mag muy ndaw ngay sénégalais rekk ngeen dem wote ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ngir ñun ñëpp ñu ànd takku wàllu Sénégal wasalaam ñu leen di gërëm di leen sant. kon ñu ngi leen di gërëm. merci ngi noonu ah, ci jàpp yéen ñëpp comme ñu ko waxee. kon nag moo soxla. Sénégal moo soxla. di woo ay doomam fu ñu mën di nekk ci àddina bi ci biir réew mi ak ci bitim réew mi kon ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci seen présence. waaw nam naa la danaa baal ndax tamit bu ñuy réunion sama kër ma ne ko grand bi naa ko fekk. non non bu ne ma day tukki su ma wooyee Moussa bu ne ma waay grand bi. ayib leen bu ñu ko fekk. waaw merci beaucoup merci merci beaucoup. Sénégal